ayu bés rek des ci màggaluk soxna jaara gi ñu amal fii ci poroxaan ndaje moo xam ne gouverneur bu kaw Kaolack ànd kook chef de service yi nekk ci région bi ak comité d'organisation bu màggal poroxaan bi nga xam ne Serigne Bassirou Mbacké poroxaan moo ko jiite ñu doon xoolaat matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko ci màggaluk soxna jaara gi fuñ ci tollu gouverneur bu kaw Kaolack Alassane Sall di ñëwaat ci mboolem ponk yi. mooy wax ñu nag liggéey bi li ñu évalué ndax gis naa engagement bu nga xam ni service yi am nañ ko muy ci wàllu sécurité di police ak gendarmerie di yeneen force de défense et de sécurité yi lu ci mel ni eaux et forêt lu ci mel ni sapeur pompier service di d'hygiène douane ñoom ñëpp taxaw nañu pour liggéey liggéey bu mucc ay gis naa également taxawaay bi nga xam ni yeneen service technique yi taxaw nañu ko ma koy rafetlu muy AGEROUTE muy UCG muy région médicale muy euh, wàllu ndox donc hydraulique SDE di wàllu Sénélec ci énergie euh, ci service su état yépp yu nga xam ni daal soxla nañ leen ci liggéeyu màggal gi seen liggéey pour ginnaaw waxtaan wi ba siiru Porokhane mi nga xam ne moo jiite commité d'organisation màggal gi moom bég na ci mboole matuwaay yi nga xam ne chef de service yi jël nañ ko te it xelam dal na. ginnaaw ndaje mi mbooleem chef de service yi dem nañ ziyaara ji Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir moom it mu bég ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci màggalug soxna jaara gi it ci dara du si kon mel na ko bëggee lépp defee ngeen ko ni alhamdulilah incha allah loolu la mën def na itam jëpp la mën rek la mu def la mënul mu jéem ko mënul mënul ci dolli dara yitte ji mënta sëkk yitte ji lañ soxla jërëjëf yitte ji mënta mbooleem chef de service yi jël nañ engagement ne daañu def luñ mën ak luñ mënul ci li nga xam ne moo jëm ci màggaluk soxna jaare gi ngir lépp yemb ndax dana am sax ay éléments yoo xamante ni daañu ko yónnee ci fan yi ngir ñu mën a tàmbali seenub liggéey